baabu ma lii mooy buntub la nga xam ne yajibu dana war minhu ci moom alwudu njàpp wala xuslu ak cangaay day wax li nga xam ne mooy waral jàpp ak cangaay maanaam daal loo xam ne mooy toj njàpp ak cangaay ba nga xam ne day daal di war kooku wutiwaatum njàpp su bëggee jaamu yàlla alwudu njàpp yajibu dana war lima ngir la nga xam ne yaxruju dana génn min ahadil maxrajayni bàyyi ko ci benn ci ñaari génnukaay yi min bawlin ci saw aw xaayitin wala xayta aw riihin wala aw gelaw aw lima wala ngir li nga xam ne yaxruju dana génn min azzakari bàyyi ko ci zakara min madiyin ci madiyu maxa xasli zakari ànd ak raxas sakara sa kullihi léppam min hu ca moom nee na njàpp moom li koy toj mooy ñaari bunt yi yàlla sàkkal doomi aadama muy bunt suuf bi ak bunt saw mi loo ci xam ne génne na ca te baaxoo caa génne rek te ak yére di warulu ko rek bu dee bunt suuf moom la ca baaxoo génne mooy xayta ak gelawal bu dee bunt saw mi la ca baaxoo génne mooy saw moom mu wax ci boppam ak mad yu ak wadd yu mel mu bëgg a wax yooyu loo ci xam ne génn te ànd ko wër nga xam yére di warulu ko su fekkee yére la daañu ko wax ci kanam waaye bu fekkee ànd naa ko wër naa toj njàpp ma bu fekkee day mad yu boole ci nag maf yi daañu ko wax moom du yem toj njàpp maanaam njàpp ma dana toj ba noppi dana aajowoo mu raxas bantu sawukaayam xam saxee ba fu mu yem ca bopp ba mu raxas ko boole ci yéene ji sax moo gën a wóor ndax doonte foofu takk ci itam du tee rek fa mu saxee ba fu mu yem ca bopp ba dana ko war a raxas bu fekkee day saw na mu fu mu ko taq rek mat raxas bu dee wëdd yi bëgg wax itam noonu fu mu ko fu mu ko taq rek mat raxas waaye fu mu ko taqlu moom du jar raxas waaye bu dee maf yi moom bu yemoon ca buntu ba kese du tee mu war a raxas la tàmbalee ca fa sawukaay ba saxee ba fa yem ndax dañu ko digal rek te xamuñu lu tax waxoo moom mad yu nag maa un am ndox la ab yab mi aji weex raqiqun mi aji sew sew ji wax mooy loyox maanaam ñàkk far daal yaxru ji dana génn xindal laddati fa bànneex ba bil inha bi ci jógu sàkkara xindal mulaaxabati fa foxante ga ay tëddkaar yi wala xalaat ga nee na mad yu ndox mu weex lay doon moo xam ne moom du far day loyox su góor gi dee xalaat jigéen mbaa muy foxanteeg moom nag ba ab sawukaayam jóg yooyu jamono mooy jamonoy génnam su ma vié moom génne ni ñu ko waxee woon dana toj njàpp ma te mu war a raxas ba saxukaay ba fam saxee ba fu mu yem feneen fu mu ko taq it noonu ndax sobe la war na ko raxas wa amal wad yu daal wad yu fa huwa moom maawun am ndox la ab wadu mi aji weex xaatirun mi aji far day tal mooy day far yaxruj moom dana génn bi itrij bawli ci gannaaw saw ma nee na wad yu moom ndox mu weex lay doon waaye day far moom nag dina ëpp a génn ci bu ko ku kooka sawee ba àggal amaana sax mu saw ba raxas ko dem bay jàpp nag wala mu jàpp noppi sax mu door a génn su boobaa dana toj jàpp ma moom na mi ëpp dal koo xam dafa seere ñàkk dem ci wanawa ab diir wala mu ku tawat ba wér nga xam ne daal day door a tane mel ne yaramam dafa manqué deret wala muy ko am sedd yu mel ne dina ko faral dal daal kooku nag bokk na ci moomu toj jàpp bu fekkee danay soree bu fekkee day jegee nag moom ñu jéggale ko tojati jàpp mi génn gi mu génn taq ci yaramam nag mbaa ci ay séram moom takk-takk bi mooy sépp sobe soo xam ne bis bu ne mu génn dal la ci yaram mbaa mu génn dal la ci ay sér bu dégg ba ci daal faaw lu néew néew mu def la ko benn yoon moom boobaa jéggale nañ ko mënees na ko juddiwaale ndax raxas fóot bu fóot bis bu ne dafa sonle su boobaa jéggale nañ ko jëmi njàpp ndax na xam ne ndax na toj njàpp mbaa du ko mbaa du ko toj nag mooy na ñëw ci àtteeg njokkale bu fekkee day li mu koy dikkal moo ëpp moom du tojati njàpp bu fekkee la mu koy ñàkk dikkal moo ëpp dana toj njàpp yajibu dana war a minhu ci moom maa la nga xam ne yajibu dana war a minal bawli ci saw maanaam wadd yi moom mook saw ñooy moom fu mu ko takk dong mooy jar a raxas waaye foo xam ne takk ko du jar a raxas yëmu tëb mad yi mi nga waxoon ne moom doonte takku ci day aajowoo la tàmbalee ci fa mu saxee ba ca bopp ba mu raxas ko wa amal mën yi daal mën yi fa woo moom maawun am ndox la fa woo moom al maa u mooy ndox ma addaa fiq may aji jiñ àllëf yi mu nga xam ne yax warju dana génn xindal lëddati fa bànneex ba al kubra bu gën a mage bil jimaa yi ci sababu booloo booloo gi wax al jimaa mooy joteeg góor jigéen ci sawukaay man yi moom nee na ndox la moo xam day génn ci sawukaay góor baa jigéen ñaar ñëpp ko am dana génn ci buñ jotee ñoom ñaar mënees naa tëdd itam gént rek mu daal di génn loolu mën na koo mën na koo def bu fekkee ne nag moom melawul nag da ko yëg muy jiñu di génn raayxatu ko xetam ka raayxati talxi mi ngi mel ne xetu tóor tóor tàndarma xetam day xeeñ tóor tóor tàndarma ci ñaxam tóor tóor tàndarma wa maawul mar'at ndoxum jigéen kuti ndoxum jigéen waaye mooy mën yum jigéen rek ba tey ndoxum jigéen mi mën yum jigéen maawul ndox lay doon raqiqun mi aji sew sew mooy loyox maanaam ñàkk far asfaru te aji gel gel mooy puur yejji bi dana war nim ci moom attaxuru ca ngaay ne jigéen moom mën yoom day loyox ba noppi day puur moom it bu fekkee ne génn ci ànd ak bànneex da ko war a génn sangu farata war ca saa yoo xam ne nag mën yu génn waaye àndut ak bànneex li ki jiit moo ko fett mu daal di génn wala ànd naag bànneex waaye bànneex ba ko génn daaw ko génn nit ki dafa ràmm rek wokk par xesan ya wala dafa jurgóotu rek mu génn su boobaa donte am na ca bànneex jàpp may toj rek ak moo raas fam ko takk waaye du tax ñu war cee sangu farata li ko bu fekkee nag la ko daa génne muy jote wala laalante ci yaram wala xalaat ko yooyu moo ko génne nag waaw koy su boo ko ba bànneex génne lay aajoo sangu farata te jote bi sax moom mën nga koo ber ndax jote gi moom dañ ko leeral léegi ne bopp sawukaay bi rek bu ko see dugg ci awra yi jaamuru ah mu war a sangu farata ne kon mën nga koo ber fee ay benn lañ daal faye jibu dana war a min hasa ci lii tuxuru jami his jasadi sangu mboolem yaram wax kama ye jibu ni ki muy ware min tuxuril xaydati ci laabu bu rek ene su man yi moom mu génnee te ànd ak bànneex ba ko daa génne sangu farata da cay war ba tey jigéen bu amee li ñuy wax mbërëg ñu mii ne ko reegal ci wax yu nu waa jamono ji reegal nag deret la joo xam ne ni yàlla bind jigéen ji bu fekkee wara diwut te toll ca weer wu ne mu gis ko bu fekkee ëmbut boole ca bu ëmbee nag moom daana du faral di gis moom itam bi deret jooju jeexee day aajowoo mu sangu farata bokk na ci waral sangu farata wa ama damul istihadatin daal dereti jàngoro faye jigu dana war min ci moom alwodoo njàpp deret joo xam ne dereti jàngoro la moom njàpp maay toj rek te moom itam dañ koy sopp rek yem ci bu fekkee dafa doon am jokkale booba njàpp du ca war ndegam te da ko dikkal ci la gën a bari dañuy sopp rek njàpp ma waaye du ko warati wa yustaxabu def ma noonu sax wa yustaxabu def na sopp laxaa ñeel borom deret jàngoro ji wali salasil bawli ak ñeel jokkaleem saw añ yatawadda a ñu jàpp ñoom ñaar li kulli salaat ñu gépp julli man na it wali wali sali sil bawli ak ñeel aji jokkalem saw nga maas ko sali mën na ko ba tey dafa wax saw kese yam ci waaye ñëpp njokkalem mën doon rek jàppooratu ca ndegam lam ko dikkal moo gën a bari jokkale mën naa doon ci saw mi wax mën naa doon ci maf yi mën naa doon ci man yi mën naa doon ci xayta mën naa doon ci gelawal maanaam daal saa yoo xam li génn ci wéradee ko waral rek loolu am jokkale la su boobaa bu fekkee lim koy dikkal mooy gën a bari kon du dajati njàpp waaw des na sopp ci moom rek bu fekkee njàpp mi sonalu ko ni ki jamono yee seddu te ndox yomb na julli bu ne rek mu jàppal ko waaye bu ko sonnee say ba mu bàyyi doyloo rek njàpp mu mere woon loolu ñu wax itam ci ki ami dawet jàngoro ji booy jóg dana war alwudoo njàpp min zawalil xaq li ci rëccum xel rëccum xel mooy dañum xel binaw min ci ay nelaw mustasxalin yu di ñu diislu wala nga ne yu di ñu diisal aw ixmaayin wala xam aw sukkulin wala mànde aw taxabuti juróoñ wala saddug ndox saddug ndox mooy say maanaam koo xam ne jàppoon waaye gannaaw bi tàggoo naa sagoom lépp lu ko tàggaleeg sagoom rek bu sagoo si dellusee war naa jàppaat ndax jamono yim tàggoog sagoom mën na faa def lu tojum jàpp te du ko yëg nit ki mu jàpp ba noppi nelaw nelaw yu am doole nelaw yu am doole mooy li mu yoroon ci loxoom bu rotee du ko yëgati sax bu kenn fi mu waxee kàddu gu xumb du ko dégg bu kenn duggee ba am génn du ko yëg loolu su jàppee ba noppi def ko say ba mu jàppaat donte nelaw yu yeggul sax wala mu jàpp noppi xëm wala mu jàpp noppi màndi donte màndi nga lu dagan la niki am soow rek mu am doole moom la naan ba garab ak tubaab rek docteur moo ko jox mu naan ko màndi dëgg la araamut ndax loola du sàngara waaye du tee mu tëj jàpp yi moom ba tey bu fekkee li ñuy wax say da koo dal day tàggoo sagoom bu say ma dañee say ba mu jàppaat waaye jógu dana war alal doo jàpp minal mu laa mësati ci laalante li lëzati ngir bànneex wala mu ba soroti ak jonjonte bil jasadi ci yaram li lëzati ngir bànneex nee na góor a jigéen ko ci xam ne jàpp nga ba noppi laal sa morom te ba nga koy laal bànneex nga ci jublu woon moom soo amul bànneex bay du tee njàpp ma toj su fekkee ba nga koy laal jubluwoo ci woon bànneex waaye far nga ci am bànneex bi itam dana toj bu fekkee ba nga koy laal jubluwoo ci woon bànneex faroo ko ci am nag boobu rek moo dul toj jonjonte gi ci yaram it noonu la moom it su fekkee am na ca bànneex donte jublu goo woon dana toj bu fekkee moo ko jublu woon moom donte amul bànneex bi itam du tee mu toj wal xublati ak foon it li lëzati ngir bànneex foonante boo xam ne bokkul ak bëpp bëpp giwiñ maanaam foonante bokkut ak giwiñ lay tax mu tañ jàpp mooy kooku jublu ca bànneex mbaa mu am ko ca waaye bu fekkee day foonu tàggoo rek mbaa foonu yërmaane te amu ca bànneex moom du toj ndax jublu ko jëwoon te amu ko jàng foonu julli nag moom faaw rek mu toj njàpp ma wa min masjid zakay ak ci laa zakara ba tey góor bu laaleeb sawukaayam te laale ko li xong ci baaraam mbaa weti baaraam yi mbaa li xong ci téng li mbaa wetu téng yi te laal ci jëmm ja bu laaloon ci silib doon silib ji daa woyof wala ci tubay doon tuba ji daa woyof du tax njàpp mi toj day laa day aajowoo mu laal sawukaayu boppam ne bu doon sawukaay beneen sawukaayu jàmbur du tax mu toj kon bu laalee sawukaayu boppam te laale ko li xong ci ay baaraamam mbaa ay téngam daal te laal ci jëmm ji ci boppam waaw su boobaa njàpp mën naa toj waxtu bi fa wuteef na fi mas ci marat ci laalu jigéen farjaxa ab ab sawukaayam fii ijaabil wudooy ci waralul njàpp bi daalika ci loole maanaam jigéen bu laalee ab sawukaayam dañ cee wuute lool daa am ñu wax nu mu ko mën di laale rek njàpp ma tojut am ñu wax nu mu ko mën di laale nu mu ko mën di laale rek toj na am ñu ne bu fekkee da caa nëpp mbaa mu dugal ay baaraamam ci biir lay door a toj waaye bu fekkee defu loolu xanaa yam ci laal ci kaw rek moom du toj wax boobu nag moom lañ gisan ci jawhar xam ne kon bu lonkalee baaraam mbaa mu ngëpp ca mu toj bu ko deful toj waaye jóge dana war ab tuxri ca ngaay la min maa ci la nga xam ne zakar naa tuddoon nañu ko min xorooji maa yi ci génnu ndox ma ak daafiq yi may aji jiñ lil la vati ngir bànneex fii naw min ci ay nelaw aw yaqa vatin wala ci yow min rajulin bàyyi ko ci góor aw imraatin wala jigéen awin xitaaxi damil xaybati wala dogoog dayeti ma rek doggi wax mooy jeex rek awin istihaadati wala dogoog dayeti jàngoro da ko wàññiwaale waaye bokkut ndax day jàngoro bu jeexee dañuy sopp rek sangu waaye du war sama da daa bëgg woon yi nga xam ne dañuy waral sangu farata awit nifaas yi wala dogog dereti wasin mooy jeexaw dereti wasin dafa bëgg far sësale yi waral jangaay yi waral sangaay benn bi ci njëkk mooy janaaba janaaba ñaari wàll la benn bi mooy man yu génn ci moom te ànd ak bànneex ba ko daa génne moo xam ci nelaw la moo xam ci ñàkk nelaw la bu dee nelaw na moom duñ duñ ci takk bànneex ndax ku nelaw mën naa jaabañ am bànneex waaye bu dee yeewu moo xam nelawut moom lay tax sangu farata war ci muy mu ànd ak bànneex li ma ko waxee woon bu ko jiit fettoon muy aw metit mu génn du tax sangu farata war ci njàpp rek ay toj ak raxas fa mu taq bu amul bànneex te bokkut ak ba ko aadoo génn it ni ki wokk fa xesan rek mu daal di génn itam donte am na ca bànneex njàpp ma rek ay toj ak war ko rax fa mu taq waaye du waral sangu farata waaye nag bu génne woon ci kaw laalante ak jigéen wala jigéen laalante góor wala ci xalaat ko wala ci jonjonteeg moom nag waaw su boobaa moom bu génnee sangu farata war ca bu ko defee benn nga boole ci jigéen bu amul deret yi ñu wax mbërëg regal ba mu jeex ba tey sangu farata war ko ak jigéen bu amul deret yi wasin wasin deret yi wasin mooy deret joxe am doom a ko waral soo amee doom tax mu am deret bu deret ji jeexee sangu farata war ko waaw léegi mu ca boole deret amul deret jàngoro ba mu jeex nag moom dañ ciy soppare ca ngaay waaye ca ngaay waru ja aw bi max yiwil xasafati wala ci fàddu bopp sàkkara fil far ji ci pay wa in lam yun sil ak doon te wàccewul man yi maanaam bu fekkee ne góor gi bu fekkee ne mukallaf mi ab sawkaayam daa dem ci awray keneen doonte loolu sax du nit ni ki bahima la itam du tee sangu farata war ko li tax ñu ne ab bopp bi duggee dañoo ne ne bu lépp duggoon jël nañ ko waaye bopp bi rek bu duggee doonte amu ca bànneex doonte dara génn donte loolu sax lu dee la ba noppi du tee rek sangu farata war ko nga xam ne kon yooyu mooy yi waral jagaayul farata wa maxyibul xasafati fàddug bopp dakara fil farji ci pay yooyu jógu dana waral alxus la jangaay maanaam mu kàllaf mi bu bopp sawukaayam demee ci awray jàmbur sangu farata war ko waxam na ko léegi waaye da ci bëgg sësale yeneen moo tax mu baamuwaat ko moo tax mu day waral jangaay def ci sësale yéemu ci bëgg sësale mooy yooyu jógu tamit waral alxadd gétan day waral géttan mooy bu góor bi defoon na jigéen joo xam du soxnaam xam ne ku ko araam la su boobaa dañuy jàpp ne njaaloo la bu ko defee ñu war koo géttan géttan mooy lañ koy teg ngir njaaloo nga waaye yooyu bi tamit waral as sadaaxa can nga maanaam suñu mayee nit soxna bu jotee moom rek ba bopp sawukaayam dem ca awray jigéen ji rek dañuy jël lépp waaye bopp rek bu fekkee àgg na ca moom war koo jox can gu mat moo tax mu naa day waral can waaye xas si nu tamit sañewuloo as soojee ni jëkkër ak jabar ba tey day wane ne ñaar bu ñu leen mayee ñu si ñu xasee jotee bu góor ga jotee jigéen ji ba bopp sawukaay ba dem ca awray jigéen ji rek kenn ku nekk siñiw nga ba fa jógaatee njaaloo atte bu rey lañ lay atte waaye li la atte atte caw rek déedéet ndax dañuy jàpp ne kooka siñiw na wayu xillu tam ñu daganal al mu tallaxate ka ñu fase woon talaasan ñetti fase li la fii ñeel ka nga xam ne tallaxaxaa fase woon na ko maanaam dañuy wax ne ku am soxna fase ko ñetti yoon bala ko mën a takkaat jëkkër dafay jaar ba tàggoog moom léegi nag bu kenn fase woon soxnaam ñetti fase bu fi jëkkër jaaraatee ba bopp sawukaayu jëkkër ji dem ca awray jigéen ji rek mu daal wëlbati ku bàyyi ko tàggoog moom kon ka ko jëkkoon yor mën naa daal ñëwaat jëlaat ko mais ka ko waccoon ñetti yoon mën naa ñëw jëlaat ko ko fase woon ñetti fase mën naa jëlaat ko ndax li fi jaar jëkkër ji fi jaar daal na koy daganal wayu firitamu yàq alxaaja aj ga kuy aj bala muy xumra li fa yëyu kuut bu ko defee rek mais saa yoo xam ne jote naag jigéen ba bopp sawukaay ba dem ci awraam rek su booba aj ga yàqu na daañu leeral nag ci aj waxtu war a yàqoo ndax la tàmbalee fal armale moom ba keroog ñu taxaw arafa moom bu ko fi defee mu yàqu bu diggam taxawee arafa itam bu ko ci defee mu yàqu bëcc bi nga xam ne mooy bëccëgu bis fukkeel bi itam nga xam ne ci la taxaw arafa ci guddi gi bët set bu fekkee defagul yaar yi sànneegu jamray xàq ba defagul tawaaful ifaada yooyu yaar defagul ci lenn ba tey buy def jote boobu rek aj ga yàqu suñ ko gën a leer laal bu soobee yàlla xëy na ci ba tolloo ci aj mooy yëf si mu yàq ak saw ma koor ga bokk na ci bokk na ci yàq koor bu bu wooree ba noppi def ko rek ni ki mu woor ba noppi jotee jigéen ba bopp sawkaayam dem ci awraw jigéen ji rek yàq na kooram yàq kooru jigéen ja wa ida raat doon gis na almaratu jigéen ja alqasata nooy ga nooy baatu wolof la ndox mu weex la moo xam ne jigéen ji su dereti mbërëgam day jeex waaw su dereti mbërëgam day jeex da koy gis muy génn cib sawukaay deret jeex ah maanaam ndox mu weex moomu nag moo tudd ak ñooy moo tax mu ne alxasata ñooy ga albayda ga aji weex tataharat kon mu sangu ah jigéen ji amoon dereti mbërëg su demee ba yàgg mu gis ndox mu weex di génn cib sawukaayam kon loolu tegtal la ci ne deretam jeex na kon seebo mu sangu wa kazalika naka noonu idaara at ndeem gis na al jufoofa ak fendi tataharat mu sangu makaanaha ci béré bamba ci jublu ci waxtu fa saasay saasa raat hu moo xam gis na ko baax da yow min ci gannaaw benn fan aw yow may ni wala ñaari fan aw saaxat ni wala wenn waxtu ba tey nee na li ñuy wax fendi fendi mooy mu jël lu mel ni aw sagar mbaa wëttéen def ko ci biir ab sawukaayam génne ko xool te toqul deret loolu ba tey tegtal la ci ne deretam jeex na mooy tam su ko gisee moo xam benn fan rek la am daal di gis loolu mbaa ñaari fan rek la am mbaa ñett mbaa wenn waxtu sax te bu gisee màndarga moom rek moo xam ñooy ga la moo xam ñàkk ngee tooy dara ci deret la su boobaa say bam jàpp ne mbërëgam jeex na daal di sangu tàmbalee julli tàmbalee woor tàmbalee def yëpp waaye ndox mu weexi moom moo gën a wóor ci tegtale ne deret ji jeex na sama in xaawa daxaa topp ndéem delsi na ci moom damuñ deret awra at wala mu gis sufratan ab gel-gel maanaam lu xaw a xong aw kudratan wala tikk tikk mooy lu mel ni raxasitum yàpp tarakat kon mu bàyyi asalaatu julli ga nee na su fekkee jigéen ji daa gisoon lu koy wan ne ko sa deret jeex na mu sangu tàmbalee jullee ko woor far deret deret dëgg dëgg del siwaat mbaa lu kumru mel ni lu puur wala lu mel raxasitum yàpp lu mel ni raxasitum yàpp daal di ñëwaat loolu lépp tegtal la ci ne kon deret dafa dellu siwaat su boobaa kon na bàyyi julli ga mel ne daa dellu daal delloo boppam ci am kon na bàyyi julli ga daal delloo boppam ci àtte mbërëk delloo boppam ci àtte ku ami mbërëk su ma ifam xataxa topp ndem dogaat na an xaa welis ko irtasalat mu sangooti wa sallat te mu julli nee na su jekkee jekk mel ne deret ji dafa jeexaat ba tey kon na jàpp ni jeex na daal di sangu tàmbalee jullee ko war a ko defee yëpp walakin waaye daalika loolee kulluhoo léppam ka damit mi ngi mel nekk deret waahidun juy jenn fil xiddati ci idda wal istibraay ak laablu xataa yóbbu ko dama te sore maa la nga xam ne bay na damay nekk na diggante yaari deret ya mislu samaanati ayaamin kem juróom-ñetti fan aw xasret wala fukk fa yekkoon kon dana nekk xaydan dimb rek mu utana fan mu di muñ sos wala mu utani fan muy aji sosu loolu jàng nañ ko ci jawhar maanaam bu fekkee ne day génnal deret ji tey bu gisee deret bu ëllëgee du ko gis bu ci tegaatee fan gisaat ko loolu mooy lañ ko waxoon ne day wàññi bis yi nga xam ci lay gis deret di ko wàññi ba muy toll ne fan yam daa am jeexal waaw su ko defee nag su wàññee bis yi muy gis deret ba mu toll ne fan yam daa jeexal te bi yoon tam deret ji jeex lañ ko waxee woon ci jawhar kon mu daal di sangu te julee ko war xam ne noonu la war a mel su amee fan yooyu te jeexul dañoo waxoon mu yokk ci ñetti fan nag wóor loo ko su ci tegee ñetti fan te taxul deret ji jeex nag say woo mu xam deretu jàngoro la léegi nag nee na bu fekkoon dañuy wàññi ay deret mbaa ay laab nag nekk bu jigéen ji dee xiddawu xiddawu waaye mën ngaa tudd fa fase rek kon mën nga ne bu fekkee dafa tàggoo nag jëkkëram jëkkëram fase ko muy xiddawoo ci ay laab kon deret yooyu ñëw ko demaat ak laab ak ñëwaat lu ko wàññi muy benn ñaar ñett ci saasa nga kon buñ ko ne wàññi buñ ko ne wàññi ñetti laab day daal di gaaw mat ndax ne moom tey bu ko gisee boo liggéey mu jeex boo liggéey mu ñëwaat kon day mel ni kon bu dee wàññi noonu laab yi day gaaw mu ne waaye kooku moom du ko wàññi mukk ak laab lu may fam jeexe woon ak fam del see waatee daa mat fukki fan ak juróom daa waxee juróom-ñetti fan ba fukk waaye yow bu jàpp loolu jàppal ni daal fu deret ji jeexee laata jeneen bi ñëwaat diggante mat fukki fan ak juróom dañuy jàpp ne kon li lu mujj gisaat dereti boppam la dana dana wàññi lee ak laab wàññi lii mbiram mu yees waaye su fekkee diggante bi matul fukki fan ak juróom kon day jàpp ne deret joojee moo jeexutoon ji da koy mottali loolu lépp boo delloo ci jawhar leerloon nañ ko ko bu baax a baax laablu daañu ko wax mu itam ci kanam booy jàng buntum nikaa laablu mooy bu fekkee ne jamono yi jaam amee jaam bu jigéen bi daa taxaw ci borom ñëw ci beneen borom bu yees da koy laablu njëkk bala moo sañ a jotee moom ba tey bu fekkoon ne soxna si jàmbur dañ koy jaawale jotee moom te kooku du jëkkëram ba tey des na ko laablu ca loola ba tey bu njaaloo woon ba tey des na ko laab bi ci loola xeeti laab yooyu nag lay wax naa xeeti laab yooyu ak xidda yooyu lay wax naa nag moom dara joo xam day ñëw tey rek boo lëgee mu jeex boo lëgee mu ñëw boo lëgee mu jeex jege noonu kenn du ko wàññi mu daal nekk ay ay ñaari laab ak ñett li fekk laab gii digganteem ak moroom moom motul fukki fan ak juróom rek da ngay jàpp ne deret njëkk jë moo jeexutoon li feeñaat gannaaw bi da koy mottali rek noonu kon ñu jàpp ko noonu kon bul jàpp juróom-ñetti fan ñu wax wala fukk bala ñu koy jàppee yaari deret yu bokkul rek diggante mat fukki fan ak juróom waman jigéen joo xam ne tamaadaa sax na bihaa ci moom addamu deret ja balaxat kon mu sax xam sata xasara fukk ak juróom yow mën ci ay fan suma xiya topp moom mustahaadatun ku amee deret jàngoro la tatataharu dana sangu wata soomu te muy woor watu salli te muy julli waya tiihaa te koy dikkal saw juhaa jëkkëram bu ko soobee maanaam daa wax ne bu fekkee ne kooku boobu yoon la njëkk a gis deret mosu koo gis lu may boobu kooku gën ngaa yàgg ci moom du mën a weesu fukki fan ak juróom su amee fukki fan ak juróom rek te taxul mu jeex na xam ne kon jàngoro la su ko defee mu sangu di julli ak woor te bu ko neexee joteeg jëkkëram mën na ko yées waaye fukki juróom mënu ko ëpp bu fekkee gisoon ne deret gisati ko nag moom kooku mooy ku ko baaxoo wax nañ ko ci jawhar day seet wan yem daa am rek ba xam bu ko amee tey dana jeexam nit su fekkee fan yam daa am jeexal bi yoon ba tey bi mu ko amee jeex na kon loola moom leer na nit ki dafa daa am juróom fan jeexal te moom ko daal di jeex loolu daal muy leer kon amul luñ ci waati su amee bi yoon juróom te jeexalul nag mu yokk ci ñetti fan ngir wóorlu ko bu ñetti fan ñi matee taxul mu jeex nag ba tey mu jàpp ne jàngoro rek la mu des nag ku ëmb ba noppi gis deret li ci ëpp ku ëmb du ko gis waaye nag bu ëmb ba noppi gis ko teqale woon nañu ko kooku mu léeg-léeg mën naa dem ba ci ñaar fukki fan léeg-léeg mën naa dem ba ci weer sax loolu yépp gisal nañ ko ci jawhar mu leer a leer bu wax wa ifam xataxan dem dog na damun mu fa saay dereti wasin wa in kaanaak doonte nekkoon na kaanaak doonte nekkoon na xorbal wilaadati di jege jur ga ixtasalat mu sangu wasalat te mu julli dereti wasin mooy deret joo xam ne am doom a ko waral fekkee daa am doom ba tax deret génn ci moom loolu moo tudd dereti wasin moom deret yi mbërëg ji nga weesoon ñoo bokk benn àtte moom nag nee na saa yu jeexee rek mu daal di war a sangu te jullee ko woor ak def yëpp doonte sax dafa am doom rek mu sotti ko fi saas daal di jeex dafa daal di war a sangu te jullee ko woor wa intamaa daa ndem sax na bi haa ci moom adda mu deret ja jalasat kon mu toog sittiina juróom benn fukk lay latan ci ay guddi su moxata sala topp mu sangu wa kaanat te mu nekk mustahaadatan li ko amee deret jàngoro tosal yi dana julli wata soomu tem yu woor watoo taw te dee fi laal ko mooy te bu neexee jëkkëram bu jotee moom maanaam daa wax ne ki am doom ba tax muy génn deret deret jooju lu mu yàgg-yàgg moom mënta ëpp juróom benn fukki fan juróom benn fukki fan bu ko am yoon fi téewul muy génn dañuy jàpp ne kon léegi li génn jàngoro la waaye du deret wasin su ko defee day sulli ak a woor te bu neexee jëkkëram bu jotee moom ndax reti ak wérit la waaye du dereti wasin baabu